ginnaaw bu Touba ca kanam yëkkatee 45 millions de francs CFA def ko ci ay jumtukaay yoo xam ne dañ ciy xeexee jàngoro jii di virus fii ci Touba Mbacké door nañ séddale léegi ci mbooleem bërëb yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tañ war leen ko jébbal Touba nekk dëkk boo xam ne dafa bëri ay daara yu jàngale alxuraanul karim teñ soxla saa su ne ñu leen di jàppale rawatina ci jamono bi loolee moom moo tax Touba ca kanam tànn lu toll ci junniy daara ci bërëb bi ñu daal leen jébbal lu toll ci téeméeri junni ak fanweer ak ñeent ak ñeenti téeméeri bu tey Madar ak lu toll ci juróom-ñaari junni ak ñaar téeméeri bouteille eau de javel ak junniy saako ceeb loolee jàppale ko ndongay daara yi ci jamono bi nga xam ne ñu ngi xeex jàngoro jii di coronavirus waaye it jàppale leen ci li nga xam ne moo di dund gi Serigne Xaali Jaxate di kenn ci ñi nga xam ne ñooy taxawu kuréelu daara yooyu le rafetlu bu baax jëfug Touba ci kanam. ñi gi sant bu baax a baax ndax lii waxtu nekk lañ ko soxla waaye waxtu wi nag moo gën di waxtoom ndax ku ne xam na ne waxtu wii ñu toll e, daara laaj na taxawu ndax génn di yalwaani rek daara mosu koo bëgg waaye rawatina nag ci waxtu yi moom exposé wu ci danger la. kon fekk daara yi nga xam ne dañ daan génn di yalwaani ñu man leen a jàppale ca fañ nekk ba ñu am luñ mën a tooge ñaareel biit mbooloo la ñuy doon ci. conditions hygiéniques yi luy tax ñu mën a euh, waxtu wu nekk ndaw ñu man di set te taxawaay bi loolu la indi kon ci turu daara ñu ngi sant bu baax tey wax ne ndimbal la loo xam ne lu ñëw ci waxtoom la te incha allahu taala fas nañ ko yéene nii ñu ko waxee tasaare ko ba ñëpp jot ci ba noppi te soññi leen ci ñaax leen ci. kon ci seeni micro dinañ ci jaarale sensibilisation boo xam ne day soññ sëriñ daara yi ci ñu gën a taxaw euh, gën taxaw ci. gone yi ndax gone ah, ndaw ñu ay ndaw rek lañu faaw dañ leen di jàppale ci wàllu set waaye dañ leen a war a taxaw it ci wàllu dund. sëriñ Mamor Mbacke moom Cheikh Mor Fadal mi nga xam ne mooy taxawu mboolem daayira yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bii di Touba moom ñëw ci bërëb bi daal di saytu li nga xam ne moom la Touba ca kanam indi woon. ñu woowaale mbooleem sëriñu daara yi nga xam ne kenn ku ci nekk war nañ la jébbal sag ndimbal ñoom ñëpp ñu teew ginnaaw bi Serigne Mamor moom sëriñ Fallou Mbacké rafetlu waat bu baax a baax taxawaayub Touba ca kanam rawatina daaray alxuraan yi. lii ngeen di gis nii Touba ci kanam moo ko defal daara ngir jàppale ko sëñ bi muy ab ceeb boo xam ne bi toll na ci junni saako saako bu ci nekk di ñaar fukki kilo ak juróom di it madaar boo xam ne bi toll na ci junni ak ñaari téeméeri carton di eau de javel boo xam ne bi toll na ci juróom benn téeméer Touba ci kanam moo ko tàmbalee ci jàppale sëñ bi ci daara yi ngir tawat ji ci boppam bañ a law ci biir Touba gi bañ law ci daara yi loolu nag sëñ bi gis na ko mi ngi ci sant ca cantam googee mi ngi ko tekki loxol sëñ Maam Moor mii moom si alaaji Mouhamadou Fadel Mbacke ngir mu jotal leen ko ñëpp a ngi sant nag ci biir cantug sëñ boobu ahlu daara ñi ngi ci biir seen waaye gisoon nañ ko démb ci yi dégg nga ko laa wax ci fonds ci wanag yi ci ceeb yi ak ci basang yi ak ci ak ci mam ndimbali tabaski yi lépp daara daara gis na ko jaarale ngeen ko ci sëñ bi sëñ bi wàccee ko ci sëñ Mamor sëñ Mamor wàcce ko ci ñooñ daara loolu nag waa daara ñi ngi ci sant sëñ Abibu Mbakke moom El Hadj Mouhamadou Fadel mi nga xam ne mooy seen jawrin yéen Touba ci kanam mooy suñu jawrin nun Touba ci kanam seen liggéey bi sëriñ Touba nangu na ko bépp murit boo xam ne bii da am pas-pasu liggéeyal Serigne Touba dara gënt gaaw dara gënt a yomb jëflanteeg ak waatu Touba ci kanam. bi nga xamee ne nattu bi tege na ci àdduna bépp te nattu moom doon loo xam ne suñu borom da ko baaxoo jëflanteeg nit ñi bu bu dalee ci kaw doomu aadama rawatina ab jullit nag la muy def mooy jéem a delluwaat ci boromam jéem a toroxluwaat jéem a tuub jéem a ñaan ndax loolu rek mooy mooy saafara si. zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnas liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un waaye wala nuziqannahum min al-azabil adna duna azabil akbari la'allahum yarji'un heure bu nattu tabbee ci kaw mbindee fi rek li nga xam ne nii mooy tax nattu booba teggeeku mooy delluwaat ci suñu borom ak ñaan ndax naka jekk suñu borom noonu la baax jëflanteeg mbindee fi rawatina jullit yi muy di leen natt comme ni mu ko waxee woon ci aaya ba rek wala nablu wannakum bi shay'in min al te naka jëkk ab julit noonu la suñu borom baaxoo jëflanteeg moom ci yonente yi sallallahu alayhi wa sallam noonu ko aaya bi di leere rek leeral la rek am xasibtum an tadxulul janna wala maa yaatikum masalul lazina xalaw min xablikum massatkumul baxsa wa darra wa sulsulu ata yaqulu rasul walazina amanu maaha mata nasrullah waaye a ay nattu yoo xam ci jamono yu yu ak jamono yu xat ba ngeen dem ba seeni xol di rëng-rëng ba ngeen naan kañ lañu yàlla dimbali waaye nañu xam ne ndimbalu yàlla jege na kon nag am nañ yaakaar ci ne bi Cheikh Mamadou Mountakha ñaanee ba noppi digal mbokki jullit yëpp ñu ñaan delluwaat ci yàlla am nañ am nañ yaakaar ci bu wër ci ne natt bi yëpp dana tegeeku waaye nag sababu changé da cee mënta ñaak mooy lii Touba kanam doon jëf jëmale ko ci dëkk bépp waaye nag tey jii ñëwoon ci daara yi muy mbir mi nga xam ne moo jëm war jëm ci ñoom ngir sababu saahir nag ñaar ngay boole da ngay da ngay def li nga xam ne mooy moom mooy sabablu ci saahir waaye ñaan suñu borom mu teg ko loolu nag lañ ñëwoon ci turu Touba ca kanam gépp waaye ci turu ñaari commission yi ko seq muy commission sociale ak commission scientifique ngir jébbal ko sëriñ daara yi di ñaan nag ci barkeb Cheikh Ahmadul Khadim ci barkeb alxuraan mi nga xam ne nii moo doonoon toolub Cheikh Ahmadul Khadim te mbooleem lu sëriñ bi mos saafara ci adduna rek ci alxuraan la ko saafara tukkim bi nga xam ne nii moo gën a siiw nga xam ne lépp lu mu am rek ci la ko amee alxuraan dong moo nekkoon wétalam kitaabum bihi masaktu bi bihi xaribanu ansaani musibaati wal kahba kon nag ñoo ngi ñaan ci barkeb alxuraan ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mooy sunu yaakaar sunu borom teggi mbooleem balaa bi ci àdduna bépp te tofal ci ay xéewal yoo xam ne nii dootu jeex ba faw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu